asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo boobu ba léegi nag yéen a ngi may envoyé photo euh, Iliman Ndiaye euh, sur sama whatsapp bi ak instagram mu téye drapeau Sénégal xam naa ne da ngeen wax ne man ma ko bëgg waaye yéen ma ko gën a bëgg quoi mais vidéo bi dama koy wax euh, aussi comme que qualifié nañ coupe di monde dañuy wax possible renfort gis ngeen ne man gëj naa def vidéo kii moo war a ñëw kële moo war a ñëw parce que boo nekkee si moment qualification nekkal ci loolu bul andi beneen débat bu xamante ne bokkul ak euh, instant yi si li ñu nekk na ñëw bala ki tel bii nas non yooyu noonu nekkul woon am na lu bëri li mu si a wax mais dama ko téye bàyyi match bi concentré aussi li information yi may joxe yëpp day concerné match Sénégal Égypte bi mais comme que alhamdulilah ñu borom jox nañu ñu qualifié ñu qualifié Qatar di ko man dinaa xool possible renforcer parce qu'il faut nous renforcer tamit coupe du monde ñu nous. bëgg ko il faut peut-être vidéo dina ñeneen ñeneen dina neex parce que c'est comme ça quoi il faut qu'on nous renforce cette équipe nous parce que équipe bi baax trop mais que il faut que nous bu ko nous avons comme Abdou ko mieux que wa méga quart de finale fofu équipe bi fa dem yëpp dañoo taxaw Sénégal nag am na mérite def lu gën a lu lu gën a rëy li mu defoon quart de finale mais balaa loolu bu ñu équipe bi ñu yor nii nañ ko renforcer. maintenant dañuy ñëw vif du sujet wax si euh, Iliman Ndiaye comme que envoyé nga leen ay photo am la laa si xalaat et tout bon Iliman Ndiaye xam ngeen li ma ci xalaat moom Iliman Ndiaye c'est un gars bien c'est un gars boo xam ne à chaque fois que mu dugal story wala day like day ñëw commentaire. donc amul problème y a pas de débat kooku instant yi xam la la nekk di def dafa nekk di charmer euh, Aliou Cissé ak waa ak sénégalais yi xam dañu nekk di xam di leen charmer ne waaye ma maa ngi nii taxaw bëgg naa de ak maa nekk woo ma waaye instant loolu la nekk di def di di di kii di wane boppam bëggee leen pour Sénégal bopp boo leen sa ça fait xamu ñaar mois yëpp xool leen tout le temps li muy moom li muy dugal affaire Sénégal sax joueurs yi xamante ne fii leen juddoo ñu ko def donc kooku bi ma def si xool nañu équipe bi mais am am na fi place coupe du monde nangam nangam mu ne gars yi nànk-nànk rek dinañ xool euh, na laa mën a waxee dinañ xool ni ñoo war a renforcer bi le c'est un vidéo may def maintenant dama koy togg ba mu ñor comme comme ni ma ko waxee et voilà ñu vidéo boobu les amna ñu mënon la sànq TikTok bi TikTok bi xol naa leen bàyyil benn lien naa leen bàyyil benn lien ci commentaire bo ngi cliquer ngeen dem direct gis ko parce que am ñu ñoo xam dañ ne gisuñu ko quoi mais bo leen ci commentaire bo leen cliquer lien bi mën leen yow foofu pourtant bo leen tapé sen football TV officiel sen football TV officiel da ngeen gis sama logo quoi ngeen abonné donc am ñu ko def ñuy abonné mais am ñu xamante xeyna xëy na ko wax leen lolu

Euh, moo ngi ngi def affaire baa ngi dox xëy na am na lu ñu ciy war a yokk peut-être côté banc bi mais c'est à Aliou Cissé de décider mais ta Aliou Cissé xamna la yow xam nga Aliou donc euh, liste des nag voilà dañu ñaan yalla nga def ay performance na du côté des champions de deuxième division Angleterre mbokk li mo neko vidéo bi ma leen di jaajëfal di wax ba benen sur football TV. asalaamaaleykum wa